bu dee wecc junni awliyaayu kamaal kon cuuju tiijaan sëriñ Haadi nee na am nan bu dee wecc junni kamaal kon na nuy xamee xaymak cuuju tiijaan ab nan ci nun la du xaymaam moo di alfu wali ca gaaña am yay kamaal min arabin xayri tiijaan ab leen bu dee wëcc junni awliya yu kamaal kon nanuy xamee xayma Malikia TV leeru Maodo am nan ci nun la di xaymaan moo alfu wali ca gaaña am yay kamaal min xayri tiijaan sëriñ adina cheikh sayid ahmad tijaani radiyallahu anhuma yaa am jaloore yu rëy yaa am ngëneel ki may yaaram yaa jaraway yow cheikhu tijaani bul tooqi bul yooqi kuy wutu yàlla yaa way sadam

amiin la ci ay yaram ci tijaan yaa dafa ñu way wi ci wolof ñun nga ayu tijaani def ngay qasida ci ay yaram ci tijaan yaa dafa ñu way wi ci wolof ñun nga ayu tijaani ne yaram yi ñoo di ganam wolof yi ñoo ñoo di sir ngalam ak param ngir aqi jaaja diine def qasida ci ay yaram ci tijaane ci wolo fujun ga ayo tijaane diine alhamdulillahi way hadi way dawtali tax dafa digal ga ni so bu yoonu tijaane bul xotti xormay diine bul tilbal bal bu sariat ak loolu xewul ci tijaan diine tijaan bi bul xotti xormay Cheikh leer ga jolli na Cheikh leer ga jolli na Cheikh leer ga jolli na ku sopp Cheikh Khadija la xayta kaw Cheikh leer ga jolli na Cheikh leer ga jolli na Cheikh leer ga jolli na foo xol ba fa Malikia TV leeru Maodo أخطار شورة أيوة يا أحمد ماذا يا وطلع إلى ويانا لرقى جلنا لرقى جلنا لرقى جلنا فوق الخوف بعواني يا أمجلو Seexu Tijaani Tijaan bi bul ndamu yow bul xebaate bul bul ayibal ko sellalul yow day nanga sellal ci Tijaani ku sellalul sellul yow day na nga sellal ci tiyaani yow day na nga sellal yow day na nga sellal taalibe gi yow yow na nga sellal yow ci yoonu tiyaani ay way ab nen bu dee wecci junni awliyaa kamaal kon noonu xamee xaymam sëñ bay Mansoor ki jóge ñu lay sàmmi sartam te ar na moo ci Tijaani boy jébbalu na nga seet ca sëñ bay Mansoor mooy ki ñu lay sàmmi sartam te ar na moo ci Tijaani yeewal say mbir mbir ci biiram ak ñett soppak jëf ak joxe lii moo gën ci Tijaani sàkku seeni ngërëm maytu seeni mer yaakaaral ci seen ñaane bu leen di mbassa bu leen gëddit wax ji dana nooy ngay toroxloo ka def la santaane boo dee teeral yow ña jur ayo teel a di ne soo xam du baax di la fay xol di kontaane ñaxtu kañetaane joor ak xëre tax na mat am nay suku suku suku ak li mañ xande doo ci yoonu Tijaan gaañooñu ñoo nemm aw xënd nag biinu waaju xamul moo jóg di leen waanu Seexu Tijaan moodirte am paddu haade dib jam haade mana jam haade benno baaya de lambo ngootu Tijaan Malikia TV leeru Maodo di kañ Seexuna Tijaan Cherif kañ yu su buur yàlla soobee dina afantu di kañ Cheikhuna Tidiane Chérif kañu rëy Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu mooy sa tuggan di mindeef bi teg cay donoom ca mbóot yaag ca leer yaag Seexuna Tijaani mooy sangu lawliyaay moo raw ca yàlla gën leen a set yére gën leen a xay Seexu Tijaan Sariif moo leen sut ci xam-xam mën leen ci diine gën leen rëy mbir ci démb ci tey su ngeen koy limaal ak ñeneen ci wilaaya géléem tukkal ngeen limaale ki bëy Cheikh Tidiane Chérif waajal nga fas yéeneen ku mu seddul doo seddu doy su ngeen koy xiyaas ñeneen ci maqaama taw bu waame ngeen lay loolu Cheikhu Tiijaan Cherif su ngeen koy xiyaas ak ñeneen ci maqaama taw bu waame ngeen li maaleeki lay yeneen baa ko jox ab tariqa ki sartam war sart yonent bi kay def naay ku war Cheikhuna ngeen ji mbindeef nga war ku war ngeen ji mbindeef bu layyee du yey su xiinee du tawul su tawloo du ñorle su ñorlee du woomle ci yaakaari mbay su diiree du jekku bu dee ree du kekku bu dee war di daanu bu dee sànni mooy sunu yoon ku koy sóobu bul bàyyi te bul ziyaaraat ku dul nun tayit nañ la doy sëkk nag di nee na xarit kaay ma wax la samay maam a ngi ku am yu mel nii sëñ leen way sëriñ aa di nee na radiyallahu taala anhu ca Maodo jaayam borom xeeja xaali cheikhu tiyaani ci ahlaalu way ñu ne haadi ku la jur mu ne Maodo ku jur kooku mu ne Alfa ku jur kooku Cheikh Alhaji Omarul Fuuti ku jur kooku. Malikia TV leeru Maodo. ku jur kooku Cheikh Seydi Ahmad Tijaani ku ko jur maamam rasulullahi en jibril allahu akbar ci askanu leer laa juddoo oh, bis ni tey sëriñ Haadi nee na ñun taalibe cheikh yi bu guddi jotee ba weer ak lépp suux ñun ku nuy teewlu xam ni nun suñuy leer du fay Seexuna Tijaani Shariif bu guddi jotee ba weer ak lépp suux ku teew lu xam ni nun sunuy leer du fay am nan bu dee wecci junni yow kamaan kon nanuy xamee xayma cuuju Tijaan ti ñaan